li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy do rek si pression bi nga xamante ne rek nam nañ ko amal lii di conseil économique social et environnemental ak li nga xamante ne rek moom mooy aux collectivités territoriales mu nekk koom-koom boo xamante ne rek ne nañ lu toll ci soixante quinze mu nekk bu dee rek li nga xamante ne moom moo ñeel conseil économique et social et environnemental budget mu ngi toll ci sept milliards membre yi nag ak juróom-ñett fukk lañ kenn ku ci nekk nag ñu daal lay désigner ña nga nar faa toog juróomi at lii di conseil économique social et environnemental nag daal nañ koy initier rek ci loi numéro 61 52 bu 23 juin 1961 nga xamante rek dañ ko daal di réviser woon ci loi 2012 16 bu 28 septembre 2012 ak loi organique bu numéro 2012 28 du 28 décembre 2012 nga xamante ne rek dafa fixé woon ab organisation ak ay fonctionnement yu aux collectivités territoriales budget ba nag nekk 7 milliards membre bu ca nekk rek nekk cent cinquante membre yoo xamante ne juróom-ñaar fukk yi nag ñu koy désigné di président de la république quatre vingt yi nag ñu daal di leen tabb rek ci mandat durée pour cinq ans aux collectivités des collectivités territoriales dañ ko daal di créé woon ci loi constitutionnelle bu numéro 2016 bu avril nga xamante ne rek dafa daal di rek lambo ñu révision lépp ñu réviser lépp luy constitution fexe rek ba adopté ab référendum boo xamante rek nekk ñaar fukki fan ak nekk ñaar fan ci weeru mars ci atum 2016 nag la ñu ko amaloon mbir mënu mel nag laaj bi samp moo membre ci jëmmi boppam rek le conseil social économique et environnemental nag doon fay seen budget bi daal dinañuy coûté lu toll ci 7 virgule 584 milliards kii di président am salaire 8 millions 80 euh, titulaires yi ak ba 40 membres nga xamante ne rek ñoom ñooy associé yi ñoom ñooñu ku ci nekk rek yaram lañ jot lu toll ci 800 mille jàpp 3 millions ci session bu nekk ci diir boo xamante ne rek ñeent la jàpp huit virgule quatre millions de francs fa ci membre année bi mu nekk nag euh, mu nekk ay koppar yoo xamante ne rek jot nañu ko xam waaye nag nit talaata nag yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ut ci atum 2024 nag fas yéene nañ rek màbbal aux collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental jamono ji ñuy wax nag député yu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar convoqué nañ leen ab réunion d'urgence niki tey ci talaata ji bu 17h jotee jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir mën a am yeneen i xibaar